عكفت على باب النبي محمد ومن رام دري فهو أجدى وأنفع بمكة بالمصاع بخيف ومشعر lay jaale di bokk ak yow tiis wi waaw yàlla yàlla na seen jaal maa ngi dellu maa ngi dellu di leen jaale yéen ñi fi ñëw eh, di rafetul seen taxawaay ci ci ci bis bi ngay waajur bu góor moomu lan lekk nga mën a seedeel sa doom. bon li ma wax ci moom moom vraiment bariwul je suis fier de lui j'étais fier de lui vraiment waaw kontaan ci moom trop waaw kontaan naa trop. feebar bi muy doxalee daf ko sonaloon depuis bi mu nekkee xale. bon feebar moom day dem di ñëw day dem di ñëw. Mais quand même, on gérait, on a géré tout le temps, on a géré. Et voilà, on a géré, on a bien géré. Et sant alhamdulillah jusqu'à présent, voilà. Non, il a étudié, il a fait un circuit normal. Donc, fois, il, il s'absentait et euh, s'absentait à cause de la maladie, mais ça n'en pas de faire un cursus normal. Il a fait CI.

j'apprécie j'ai beaucoup apprécié ça. boo ko xalaatee sa xol dina tooy loo xam ne duñu leen ko bon il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses il te xam naa ni bëgg na bëgg na bëgg na rakk mi bëgg na magam soo ça m'a vraiment plu ça m'a vraiment plu chez lui. Non, moi je suis là je suis là-bas, on je suis allé, on l'a amené à Yasso. je profite de cette occasion de, de tout, tout, tout, tout, tout le personnel de, de militaire de Wakam. Bon, à chaque moment, ils ont soutenu, ils ont été présents au moment où il était dans le besoin. Je, je, de l'occasion pour remercier tout le personnel de, de l'hôpital militaire de Wakam. Franchement, chapeau pour eux. bi mu nekkee hôpital ana yan kàddu rek nga doon weccoog bon bon ça va na nga def est-ce que bon il avait le moral quand même il a vraiment a eu le moral il a eu moral jusqu'au dernier moment a moral. Et c'est un croyant aussi, hein, croyant. grand vide. autour de moi. Un grand vide autour de moi. Ouais. Ça, moom. Mais bon, on est des C'est Dieu qui décide. Yàlla lu mu def la kenn mënu si dara ñu mënu si dara kenn mënu si dara. Bon. nee ma daal à ah, et damay dem léegi nag xaw fan lay dem je crois que il est parti vers 14h30 14h20 quelque chose comme loolu am daal surtout ma frappé ci hôpital ma fa. ba mu lay wax ne et demi damay dem xalaatoo woon ni dem boobu la la wax. non ko woon xalaatu ko woon. léegi doy na 5 minutes.

waaw waaw ñuy defal na quelques témoignages ci moom nga wax moom sant bi lan rekk la nag nit ku baax nit ku baax nit ku bëgg kàddu rek ngeen échanger ko yéen ñaar kàddu yu bëri ngeen waxtaan rek waxtaan rek comme ni waxtaanee chaque jour waxtaan rek daal de tout et ni waxtaanee chaque jour lan moo la gën a marqué ban moo la ci gën a marqué. bëri na. bëri na trop bëri na. ban rek ngay fàttaliku ba jamono ji. koy dëkk moom nag beneen damay fàttaliku si moom bëri na tellement de choses su mbopp bi fees damay fàttaliku si moom bëri na

suñ suñ ma limal ay tur naan ma ñii dañoo baax ñii dañoo baax ñii dañoo baax dinaa la namm de ma ne ko man tamit dinaa la namm suba rek incha allah dinaa ñëwaat suba rek incha allah dinaa ñëwaat. boobu lay dem. la ma wax suba suba dinaa ñëwaat dëgg de suba boobu lay def ma ne ko suba dinaa ñëwaat ah baax na ba suba léegi du ma ko gisaat bu nekkee du ma ko ma koo bëgg man dernière occasion wax ak moom yàgg naa ko dama koo bëgg dernière occasion wax ak moom su ma ko amoon waxaat ko ko dama koo bëgg waxaat ko su ma ko ñu ngi lay mokkoo bu baax di la jaale li ñu bokk. waaw boo moo kamara sa xarit ay jikkoom. sama sama xarit. Mm-hmm. sama lépp. Mm-hmm. ñu nañu vraiment. merci. merci. soo ñu mënee expliquer yan jaar-jaar am yéen ñaar ak moment yoo xam ne dund ngeen ko mu marqué la ba léegi. ñu bokkoon école doon bokk classe doon defandoo lépp seen kër suñu kër presque benn la suñu ñaari kër yi benn la gis ngeen ba ngeen fi nekkee ba tey presque yéen a ngi fii ñoo dund loolu daal lépp lépp naka nga yëgee demam démb. daf ma fekk ma nekk di liggéey. ma toog gis estat mënuma ko gëm dama ko gis rek daal. ndeysaan. may liggéey ñu ne ma dama ñëw dama na doon ñëw kut oo kut. ma woote fii sama papa ma ak guddi bi. Mhm. xaaral ba suba si nga ñëw moo gën a wóor. Mhm. parce que dox guddi baax. dëgg la. noonu laa fi sama wëtu démb yi ba nii maa nii nelaw ma def ma dara. dañoo jooy ba mënatuñoo jooy. Mhm. jooy boo xam ne taxul mu ñëwaat ñëw. Mhm. moo moo war a jóg. Mhm. ku tëdd da ngay jóg na jóg. Amasa nga bokkoon ak moom école bokk ak moom classe yaroon ak moom lan lekk ngay fàttaliku ci moom loo xam ne marqué na la ba léegi. ah tabaski passé ñu toog ba ngoon maa bi nii ñuy photo moom moo ñu dee photo des fois ndeysaan mu ñuy photo nii man ak antamay caat bi mhm. léegi bu ñu defee pause mhm. day taxaw lu yàgg du photo mhm. après mu ñuy reetaan ma naan ko yow li ñuy def nii mooy lan genre affaire yooyu ay kafam ay reetaanam lépp daal moo ñuy manqué moom amul lu ñu doon manqué si moom vraiment. tey mu génn àdduna dem bàyyi leen ngeen di centre benn vide est-ce que yëgoon nga feebaram wala ba mu nekkee hôpital daan ngeen déggoo. yëgoon naa feebar bi mais feebar bi yàggul ba ñu métti la jàmbatoo. Mhm. ba ma wootee fii dañ ma ko wax. kañ ngeen gëj a déggante. yàggul mais yaakaaruma woon parce feebar bi gënoon na di aggravé di te day jóg da mhm. doon feebar di jóg mhm. ñun yaakaaruñu woon ni mën na ko yóbbu mhm. pour ñun day jóg moo kàddu ngeen mujjee échange te ko di ko tooñ ci affaire seen série bi mu ne ma non affaire day gént la genre muy tax ñuy ñuy waxtaan noonu di kaf ak li ñuy tàmm di waxante mun naa ma danga baax man ko noonu yaa gën a baax loolu la ñu wax mm-hmm. ngi lay masoo ba xool xool làmb làmb ba mm-hmm. loolu daal lañu am si moom dangaa demoon ci morgue bi tey ci suba mm-hmm. pour dem gisi ko ba nga demee foofu ba nga gisee mu tëdd sa xel ci lan la njëkk dem ci yéen ñaar li ngeen sekkoon ba mu nekkee fii ci àdduna yée ko mu jóg wuyu ma rek laa bëggoon amuma leneen yee ko mu jóg parce que comme kuy nelaw yee ko mu jóg wax ak ñun rek parce que ku tëdd na ngay jóg daa war a jóg